alhamdulilah rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim alaa abdika wa rasuulika Muhammad wa alaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin amma baad mbokk jullit yi ñoo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu boroom tabaaraka wa taala ci def ay ndigalam te bàyyi ay tereem mbokki jullit yi weeru koor dafay weer woo xam ne dafa fees dell ak yiw woor ko yiw la naafila ko yiw la mboolem jëflente yi nga xam ne lislaam dafay soññ jullit bi mu jëflente ko ci weeru koor lépp boo ko topp yiw kese la yiw kese la ci kam jóge ci moom waaye yiw kese la ci kam jëm ci moom itam weer la nag woo xam ne weeru tabaxukaay la maanaam dafay tabaxaat nit ñi defaraat leen day mel ne daaba joo xam ne day mel ne wata bu doon daw ba àgg ci sonn ñu delloowaat ko ca usine ba ko defaroon mu defaraat ko ba mu baaxaat ñu génne ko tegaat ko ca kaw yoon wa kon koor dafay tabaxaat nit ñi daleen di réparé waat la doonoon ci ñoom ay ayib mu dindi ko la taxoon ñu dellu gannaaw wala ñu tardé mu dindi ko ba mu set wecc tegaat la ci yoonu jaamu yàlla ak njub ngir nga mën a doon ci nga doon nag bu wér a wér a wér yar boobu nag ak defar googu nga xam ne moom la koor di defar nit dafa làmboo lu bari nag ci ay leçon yoo xam ne ay bind la yoo xam ne askan wi dañ koy jariñoo moo xam kenn ku ne ca sa kër la moo xam mbedd mi la moo xam askan yépp la waaye nag loolu dafay laaj ñi dund koor nag dëgg dëgg dëgg ca nañu ko santaane sunu borom tabaraka wa taala bi mu ñu koor dafa wax lam ci jublu dafa wax lam jublu ci sunu wooree li mu nuy indil loolu daañu ci léegi kon buñ xoolee danañ gis ne am na ay anam yu aji ci wàllu jikko da koy defar muy wàllu jëflente wàllu pas-pas wàllu nit ki ak yëg-yëgam ak ngir mu doon lam war muy doon ak nit waaye doon jullit yooye nan la koor di jaaraat ba delloosiwaat nit ki ba mu doonaat ku bees mu teg ko ci yoon wi danañ gis ne am na ay tomb yu bari ci biir doom aadama ji yoo xam ne da koy jël benn par benn di ko defar yooyu suñ ko defaree ba noppi ci moom nit ki dund koor gi bu génnee moom ci boppam dana yëg ne moom nii keneen la ku bokkul ak ka doon kero bis bu jëkk ba yooyu mooy yan ba ci jëkk moo di muñ muñ muñ dafa bokk ci yi nga xam ne ay jaamu yàlla la kawe doy na rek nga xam ne sunu borom tabaraka wa nee na muñ leen ndax yàlla dafa ànd ak way muñ yi wasbiru inna allaha maa sabirin kon maqaama bu kawe la muñ nag dafa nekk ñetti xaaj muñ takk sa dënn ba mën a def jaamu yàlla yi ñu la sant muñ takk sa dënn ba mën a bàyyi liñ la tere muñ takk sa dënn ba balaa yi ak nattu yi tege ci sa kaw mën a wayaf ñetti xeeti muñ gii ci jaamu yàlla yi la aju gii ci moy yàlla yi la aju gii ci natt yi yàlla di teg ci kaw doomu aadama ji ci la bokk koor nag boo ko xoolee ñetti xeeti muñ yi am yépp da cee nekk ndax ki tëkkul ab dënnam muñ kooku munta woor munta fekk yi nga xam ne dañoo daganoon ci moom mu xëy xëy benn bis bàyyi leen kon bàyyi gi nga leen di bàyyi lekkatoo naanatoo ba ngoon kooku muñ mooy tax nga man koo def waaye muñ ay mooy yàlla yi tam a ngi ci jëllale naa mooy yàlla yi nga xam ne sax dañuy yàq koor ndax yooyu moom ci woor xalaatul di ko def waaye su fekkee ne am na yum doon sàggan sax yoo xam ne ay mooy yàlla yu lu mu bàyyiwul woon xel la lu mel ni jëw lu mel ni wax ci ay nit jottali ko ab deram di ca wax wax ju ñaaw wala yu nuróog yooyu wala xool sax loo war xool koor day tax jullit bi yooyu yëpp daf koy wattandiku kon muñ goo xam ne day tax nga takk sa bopp ba doo def genn mooy yàlla kooku koor dal fa la ci tàggat nattu bi la yàlla di nattu nattu bu xóot la ci koor yàlla daa séddale woon mbir yi yu dagan ak yu daganut yu dagan doon yu leer naññ yu daganul doon yoo xam ne yu leer naññ la ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe jullit bu nekk xam ne ne sàngara dafa xaraam njaaloo dafa xaraam waaye jullit bu nekk xam na li dagan xam na li dem liggéey ñaq bu añ jotee nga añ bu reer bu ndékki jotee nga ndékki lu dagan la loolu jullit bi xam na ko waaye nag sunu borom tabaraka wa taala dem ba mu yàgg mu nattu la ci aw weer woo xam ne daf ne woon yi ma daganaloon ci yow muy ngay ndékki di añ di jëfandikoo say bànneex te na la ko sante yooyu dafa daganoon léegi nag weere ngi woo xam ne bëccëg bi yépp dama lay tere yi ma daganaloon ci yow ndax ya nga tàmmoon bis bu nekk kenn xamul ñaata yoon ngay naan da nga xëy ndekki añ am na ñoo xam ne fuñ toll dara ngi seen poos ñuy jëfandiku yooyu yépp ñu xëy na la daggal lool kon ab nattoo ngoog boo xam ne dañuy xool ba xam yow mii dangay ngay topp sa borom wala déet ndax loolu li ko waral mooy nit li nga xam ne dañ ko ko digal mu di ko def ñu tere ko mu koy bàyyi mu continuer loola mel noona rek ci ak dundam ba kero ak dundam di jeex mbir mi day mujj ci moom li ñuy wax routine moom day mujj nuru day mel ni aada loolu moo tax léeg-léeg ñu beesal dara loo xam ne moom du aada ndax démb da nga doon añ di reer tey bisa ngi boo xam da nga doon ndekki di añ bisa ngi boo ne rek la bul ndekki bul añ kon lu bees ñëw na kon saa boo demee ba romb fukki weer ak benn fukkeel ba ak ñaar ñi delloo siwaat natt boobu yañ daganaloon ci yow bëccëg ñu ne la bu ko laalati nattu la foofu ba weer wa dee ba xam yow li nga doon jaamu yàlla ci li weesu ndax aadala woon wala dëgg dëgg nag topp yàlla la foofa la mbir ma di feeña nag kon kon muñ ci yi di yaraat nit ki ci la bokk te mbokki jullit yi képp koo xam ne amul ak muñ amul diine ku amul ak muñ amul diine diine lépp muñ la ñaareel ba dana yar ci moom li ñuy wax iraada volonté volonté nga xam ne lim bëgg am na décision bu nekk ci xolam boo xam ne dëgër na dëgëraay boo xam ne mën naa jëlal boppam lim bëgg mën na koo def lim bëggul mën na koo bàyyi ba noppi wëlbati ko nag jël bëgg-bëggam moom mu takkale ko ak bëgg-bëggub la yàlla bëgg bañ-bañam mu taqale ko ak bañ-bañam la yàlla bañ kooku mooy iraada bi lislaam di wax ndax nit ki xëy ndox mi mu doon naan mu xëy naanatu ko lekk gi mu doon lekk mu xëy lekkatu ko te ndox maa ngi fi mel nam meloon fan la war a mën a jaar ba xëy xëy rek jël décision ne démb damaa añoon tey duma añ démb damaa ndekki woon tey duma ndekki yi ma doon dox di ko forfaat ci ko ci bëccëg ko lu mat fukki bis kooku iraada moo ko mën nammeel gu dëgër volonté bu dëgër moo ko mën a def képp koo xam ne nag yar nañ la ba nga man loolu yi nga miinoon démb mu dagan am luñ dëgëral ci sa xol ba nga xëy ne yi daganoon démb bàyyi naa ko tey kooku lan la war a mën a lan la war a mën a jural moo di dundal na ci yow benn yëg-yëg boo xam ne yañu la tere bu koor gi jàlle it yooyu da ko mën a bàyyi kon loolu la lay dundal kooku nag li ko mën mooy iraada boobu volonté boobu nga xam ne moom la ñuy dundal ci sa xol mooy tax li nga bëgg a bàyyi nga mën a xëy xëy tey ne bàyyi naa ko kiñ nattoo woon tux mu dugg ci weeru koor mu wóor ko ne bëccëg a xam ne ca suba ba ngoon laalu fi ab cigarette di ko def ba mat fanweeri fan kooku dundal nañ ci moom loo xam ne su ko su ci jariñoo su ko exploité fa lay teggee bàyyi tux ba faw ka jëfandikoo yeneen yu xaram yépp itam noona ndax ci bëccëgu weeru koor bi moom ki woor lépp luñ xaraamaloon ci yow moom yëllale naa eh, yañ xaraamoon waaye yiñ daganaloon ci yow sax tale na bu ko defati sax yooyu yépp bàyyi nga ko far mu jaral la lu ne nag kenn mun laa tax a waaye waay li nekk ci sa xol bi ba dund ñu dundal ko suuxat ko ba mu naate noonu ci bëccëgu weeru koor yi ba nga bàyyi yooye yépp ah kooku kay bu koor gi jàllee mën nga faa teggee far benn yoon bàyyi ci des yépp su fekkee ne am nga tawfiq kon iraada boobu muy nammeel gi nga xam ne nit ki muy jël moo moom boppam léegi mooy jël ay décision seytaane mënalatu ko dara mënalatu ko yàqal gindiku na koor tabaxaat na ko loolu lañ soxla jullit bi buñ génn koor mu yóbbaale loolu moo di dana yar ci moom xel ci jëmmi nit ki li ñu tudde al muraqaba muraqaba nag mooy fuglu sa boroom bàyyi sa boroom xel ci looy def lu ne li muy bëgg a laal ndax dagan na wala daganut koor daa bëgg boo génnee ci koor gi lépp looy defati nga xool ba xam lii dagan naam daganut nan la koor di indee loolu ni mu koy indee moo di ki woor làqu fi béréb boo xam ne kenn gisu ko mën naa lekk mën naa naan waaye lekkul naanut lan moo tax lekkul naanut am na lu ñuy dundal ca biir ci mënoon a jóge ci quartier bi ko nit ñi xamee dem tuxu ci beneen quartier diiru koor gi mu dëkk fa bu añ jotee mu dugg ca restaurant ba añ ña koy gis kenn xamu ko amaana buñ ko xoolee sax ne kii xëy na daa bokkul ci jullit yi wala musaafir na wala yu mel noonu lu tax nit ki mënul woon a def loolu toxoo fa mu dëkk dem dëkk foo xam ne kenn xamu ko fa mu añ jotee muy añ di di ko def nam ko bëggee ba weer wa jàll mu dellusiwaat fa mu dëkkoon li ko tee def loolu am na lu dund ci biir kooku la ñu tudde muraqaba mooy bàyyi sa boroom tabaraka wa xel nit ki mënoon nay def noonu mënoon naa làq fi bérébam lekk naan wala mu dugg ci néegam yor ay yëfam lekk ca naan ba màndi génn dem ci beneen bu ñu ko xamul añ foofa bu dog jotee mu dikk toog waa këram ñu dog kan moo naan wóorut kenn gën a wóorut waaye nag loola du ko def ndax am na luy dund ci xol bi loola la la koor di dekkalaat ci xol bi bu dee ab appareil boo xam ne da doon bëgg a am xumaag koor day ñëw faxasaat xumaag bi ba mu set bay leer su ko defee boo génnee koor gi appareil boobee continuer di def liggéeyam lan moo tax jigéen ji nekk ci biir waañam tëj bunt ba moom dong ñam ba nekk fa ñor xomm mu di ko gis jant bi soogut ñi mu koo laal te du ca lekk te mënoon la caa lekk de kenn du ko gis waaye du ca lekk ndax appareil boobu mi ngi dund ci biir xol bi te kooko mooy dox digganteem ak def lii nga xam ne yàlla da ko koo yàlla da ko koo tere loolu lépp li koy def kon kooku mooy almuraqaba muraqaba moom yi nag jumtuwaay bu ne ci doomu aadama la boo xam ne saa bu feebaree wala mu feebal wala mu yàqu nit ka lu ne mën na koo def waaye li feeg mi ngi dund nit ki di bàyyi boroomam xel mën naa mucc ci lu nekk loo xam ne lu yàqal doomu aadama la moo tax borom bi tabaraka wa taala bi mu ko rataalee koor mu ne yaa ayuha alladina aamanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun yàlla daa farataal ci yéen koor nam ko farataale woon te ñi leen jiitu woon lu tax laallakum tattaquun ngir ngeen mën a ragal yàlla ragal yàlla gi su amee rek appareil boobu mi ngi dund bu wér kon dañoo bëgg yow mi doon woor nga xam ne koor gi ragal yàlla ak bàyyi yàlla xel moo taxoon bëgg a tëddee ci sa néeg marwa di la bëgg a rey xiif ba di la bëgg a rey aw ñam nekk ci frigo ba ndox mu sedd nekk fa waaye sa loxo du mas a tàlli jëm ca loola sa xel sax du ko xalaat ndax danga xalaat ne sa boroom mi ngi mi ngi lay gis kon dañoo bëgg boo génnee koor ga lañ lay tere mu doon looy lekk wala looy naan tam xaraam wala looy sol tam xaraam wala alali jaambur joo xam ne dañ la ko dénk nga mën caa jël dara te la ko dénk duñ ko xam yàlla ma nga xam ne dangaa gëmoon ne kët soo defee dara ca biir néeg bu tëju ba mu xam ko kon yàlla moo mi xamal ne mi ngi lay topp ba ci bitti kon loolu moo tax koor day génn noppi ci nit ki mu doon koo xam ne ku jub la duutu wax nit lu mu ko war a wax du jël ci alalam lu mu ca war jël jëllale naa nag di def loo xam ne lislaam da ko xaraamal ci moom kon koor noonu lay dundale muraqaba ci doomu aadama yi waaye koor dana ko yarit ci mu sant yàlla sukkur dana ko yar ci mu lewet itam mbokki jullit yi ki nga xam ne yàlla da ko baaxe ci wàllu alal muy dunde nu mu ko neexe ci dunduk àddunaam su fekkee ne borom bi tabaraka wa taala baaxewu ko mu mu bokk ci ñi nga xam ne dañoo doon ay jaamukati yàlla dañoo doon ñu ragal yàlla su bokkul ca ñooña xol bu wow lay wee ak coxorte kum gis ku ne jàpp ne lim yor ci nga bëgg kum gis ku nekk jàpp ne da koo iñaane sax lim yor yëg-yëgu xol bu wow bu mettee metti moom lay dund te it dundam bi muy dund lépp yomb ci moom tax na amut seetluwul nit ñi lu metti li ñuy dund ndax jaaru ca ginnaaw jaaru ca day mel ne mënu koo xam kon ñu xiif ñi ko wër ak fuqaraaw yeeg masaakiin yeeg la ñuy dund ak la ñuy jànkoonteeg moom loola xelam ko ci am na doomu aadama dund loola ndax jàpp na ne moom li muy dund daal euh, doomu aadama yëpp benn loolu la ñuy dund wala benn tumuranke gi ñi koy wax sax dañuy dox rek di jéem a dajale alal waaye dara dalu leen kon kooku amul yëg-yëg bu mel noonu koor nag bu ñëwee koor mooy jumtuwaay bi nga xam ne xàmmeewut ku ñàkk ak ku am ñépp la ne woor leen kon kooku su xëyee moom mi yoroon ay xéewalam di ko xéewloo nu ko neexe mu xëy bañ julleegul fajar lekkul naanul ba julli timis jot mu fàttaliku ne ndeke am na ay doomu aadama yoo xam ne lii ma yendoo tey boo tuut moom lañ dëkke ñoom buñ xëyee duñ am luñ ndékkee bu bëccëg jotee duñ am luñ añee maanaam dañuy ndékki ba noppi su fekkee am nañ ndékki door a jóg di dox di wuti luñ añee mën nañ koo am wala mën nañ koo ñàkk suñ añee ba noppi la ñuy door a jóg di wuti luñ reere mën nañ koo am wala mën nañ koo ñàkk kon xiifam boobu ak maram boobu yi mu yendoo amal na njariñ nit ñi ñi nga xam ne dañoo ñàkk ndax yëgal nañ ko ne yow kat li nga doon dund tey am na ñoo xam ne at mépp daanaka ci loolu lañ nekk kooku dana ko jural ñaari mbir mooy yërmaande ci doomu aadama yi te muy jur ak lewetaay dana yëg ne toot wax dëgg yàlla ñii kat mat nañoo gendiku beneen bi dana ko jural ak sant boroomam tabaraka wa taala ndax su fekkee am na nit ñoo xam ne dañuy xëy duñ dekki wala xëy duñ añ borom bi tabaraka wa taala sottil ko ay xéewala muy añ di reer moom njabootam ak ñi ko jege ñëpp kon kooku war naa sant boromam tabaraka wa taala ci nangul ko lim ko defal waaye mu wëlbatiku geesu doomu aadama yi ba mën leen a defal li nga xam ne moom lañu sant bokk na ci yi ko koor di yar day tabaxaat rek doomu aadama ji mooy mu tabe loolu ñu junj nuru na ko waaye koor gi su fekkee ne borom bi tabaraka wa na borom alal jooji mu xiif mar ba xàmmi yërmaande dund ci biir xol bi mu li ko doomu aadama yi loola la ca war a tegu rek mooy joxe weeru joxe lañ nekk bu dee kuy génne asakaam ci weeru génne asakaam wi mooy weeru koor wala mooy wacc gën bokk su fekkee ni ku def fi sabilillahi la moo xam dafa am juróomi dërëm fas joxe benn bi weer wi mooy weeru xéewal wi moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki gënoon a tabe ci doomu aadama yi waaye nag weer wi ci lay gën a tabee moo tax abdullah ibn abbas radiallahu taala anhu noonu la ko nettalee nee na kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ajwad annaas nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy ki gënoon a tabe ci doomu aadama yi wa kaana ajwadu ma yakunu fi ramadan fam daan gën a tabee dëgg dëgg dëgg nag mooy bu weeru ramadan dikkee nag waxtu wi nga xamee ne nee na jibril daf daan ñëw guddi gu nekk di toog di ko déglu muy tari alxuraan di ko déglu muy tari alxuraan nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam su masaan fanaan ci loolu ba xëy ak tabeem dana àgg ci day mel ni ngelaw loo xam ne sunu borom tabaraka wa taala da ko sànni rek muy ngelaw di dem maanaam ku ñëw rek lu mu yor boo ko laajee mu jox la ko boo yégee ne soxla nga ko mu jox la ko moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam da joxe ba jeexal tàkk da nga da daan joxe ba jeexal tàkk am na boo xam ne dafa julli sëlmal jullik suba wala gee ci yenn riwaayaat yi daa di jóg jéggi nit ñi génn te loolu daawuñ gis mukk mu def ko asalaamaaleykum wa rahmatullah rek daal di jóg jéggi dem daa di dellusiwaat indaale am mbuus moo xam ne alal la ca nekk mu daal koy joxe ñu séddale ko nit ñi ba mu jeex tàkk biñ ko laajee lu tax mu gaaw a jóge noonu mu ne loolu dañ ko fee indi woon ngir ñu joxe ko ma ragal mu fanaan fi wala ma ragal mu yendo fi ci beneen riwaaya bi kon loolu da ci dégge ne li nga xam ne itam dañ koo dugal ci sa loxo mu jëm ci fuqaraaw yi wala miskin yi waroo koo denc ne saa bu ma gisee ku ko aajo aajowoo rek ma jox ko ko waaye ñii ko aajowoo ñi ngi teew jógal daal leen koy jox fi saa si warta taxaw ci sa loxo waru faa yendu waru faa fanaan bokk na ci yi koor di yar nit ki tabaxaat ko ca moo di daa war a jóge ci koor doon koo xam ne kuy jéggale la kuy jéllale la yi nga xam ne doo mi ngi jóge ci lor mu ngi doon lor mi jóge ci doomu aadama yi di ñëw ci moom yooyu da ko war a jéllale dafa war a jéggale itam ndax loolu dafa bokk ci jikkoy lislaam yi nga xam ne lislaam da cee soññee lool ki nga xam ne dafa xamul ba juum ci sa àq wala ki nga xam ne xam na sax waaye dafa juum ñooñu des leen a jéggal dani nag koor ni muy defee loolu ci nit ki moo di nit ki xëy ñaare lekkul naanul yim tàmmoon yépp ñu xëy xëy arrêté ko bu yeexee rek am na xeetu xol bu xat ak tàng aw tàngoor ak naqari deret gu koy gaar goo xam ne li ko indi mooy yooyu mu tàmmoon mu xëy xëy ñu tere ko bu yeexee rek yëg-yëg boobu lay dund ci bëccëg bi yépp mën naa dugg këram mel ne kay ndee fa dugg gone du ko jege mag du ko jege naqari te fekk kenn defu ko dara waaye li muy yëg yim tàmmoon a jëfandikoo te bàyyi ko yooyu moo tax mu naqaree deret noonu naqari deret boobu nag la lislaam bëgg mu bàyyi ko su demoon ba nit dogale la yow mi woor xas la wala mu def la lu dul noona sax lislaam nee na ne ba ah, man kat dama woor noonu la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale nee su fekkee kenn ci yéen dafa woor am ku dajeeg moom saaga ko la wax de wala mu dóor ko nee lam koy tontu mooy lan na ne ko man damaa ne ci koor saaga nga ne ko damaa ne ci koor mu dóor nga ne ko damaa ne ci koor waaw ki nga xam ne dafa yendoo lekkul naanut di yëg ak ay xat-xat mu dajee nit mu saaga ko dolli ca yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne la ngay tontu na doon nee ko dama woor mu dóor nga ne ko dama woor kon kooku bu koor jàllee ngay lekk di naan ànd ak sa daluk xel kon kooku jëlale naa ku xasa ca saaga waaye duutoo am problème diggante doomu aadama yi xol ba defaru na ku wax wax ci ñaaw jëmale ci yow da ngay xam ne kooka mooy loru benn yaa ngi jël ay tuyaabaam moom wala ma jël say bàkkaar kooka soo ko dee laaye biir sax pour bëgg ci moom lu baax lay doon waaye du pour fayantoo loolu nag nit ki day dem ba àgg fa fekk du xam lu ko fa àggale waaye fekk koor mii moo jàpp ci loxoom di ko womat ndànk-ndànk ba yóbbu ko foofu nit ki dana dem mane ba àgg ci ci koy lor ci wax wala ci jëf su ñëwee di ko laaye biir pour mucc ci moom taxul mu di ko def waaye ngir yërëm ko mo ndax mi ngi jël bàkkaari doomu aadama yi te doomu aadama yi ñu ngi jël ay tuyaabaam boole ci mu bëgg mu génn ci loola ba mën a doon koo xam ne day am ay tuyaaba mucc ci bàkkaar foofu la taxaw di ko laay biir defar goo gi nag mooy defar xol koo xam ne su ca doomu aadama àggee nag ci lu wér te wér mooy jariñu ci kooram yal na nu sunu borom tabaraka wa taala dimbali ban àgg ci foofa ba jariñu ci koor ni ko sunu borom tabaraka wa taala bëggee allahuma aiz al islaama wal muslimin wa adilla shirka واحفظ لنا ديننا وإيماننا وتقوانا واحفظنا بالإسلام قاعدين وبالإيمان قائمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة